asalaamaaleykum mbokk yi tey la talaata ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru tabaski atum junneek ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett yamook talaata ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet atum ñaari junneek ñaar fukk ak ñaar tënkum xibaari bis bi ci Ali Imran TV li ci gën a dañu koy door rek liggéeykat ya woon ci SETRAC CH ak ama Sénégal seleng lub xiifal ba ñu nekk nag fan yi yëpp tax na démb ñaar ca ñoom lottu ba laati kaaf ba nag wallukat yi mujj leen jël si rawale leen ca rak lub Idrissa Pouy ca Grand Yoff euh, ña ca des nag daal nee na ñu tey la ñu gën a dogg ca xeex ba duñu ca deltu ginnaaw benn yoon li fekk sàmm gi ñëwul wax ak ñoom ñu des ci wàllum selenglu ak liggéeykat yi Sen'Eau di kër gi ñu dénk wàllum ndox mi ñoom itam nag ñi ngi ci selenglu démb ak tey bu nu sukkandikoo ci ki yor seen kàddu nag nee na daal am na ñu mbégte ñoom bu baax a baax ndax dàll lu toll ci juróom ñett fukk ci téeméer topp nañ nag dogal boobee ñu jël dana nu ko fas yéene làbbali nag niki tey ba kerook kilifa yi di wax ak ñoom Euh, dañuy dem ca Sédhiou wax nag ci gaagaande gu metti gu fa am ni ki démb euh, di nag ak sëfaan gu dal ci kawab moto ba borom moto ba nag ñàkk bakkanam ca saasa euh, borom moto ba nag wax na ni ab jàngalekat la woon ab néewam nag yóbbu nañ ko ci raglub Sédhiou ki nga xam ni nag moo doon dawal sëfaan ga ginnaaw bi mu defee jéye ji ba noppi dafa dal di teg njëm daal di daw way takk deri dëkk ba nag ñu ngi koy wër Euh, dañuy wax ci wàllu politique ñu wax nag ci ndajem politique ma ñu doon amal démb fële ca euh, Medina xeexoo yu metti nag moo ko mujj tas ci diggante yi farandoy Bamba Fall ak euh, kii di Cheikh Ba kii di Aliou ndoy nag ma nga fa woon ci pàttali nag moom Aliou Ndoye moomee moo jiite lim këk Benno Bokk Yaakaar ci Ndakaaru mi ngi woo nag ñaari wàll yëpp ci dal ñu xam ni dal li leen war mooy Benno ngir rek mën a am ndam Euh, dañuy des ci wàllu politique tey ji nag euh, usmaan Sonko ak lëkkatoog Yewwi Wallu war a wutali fële ca diiwaan euh, bu Kolda bu nu sukkandikoo nag ci ki yor seen kàdduy farandoo yi féete ca gox ba nee na daal yëg nañ ay mbir yoo xam ni ñi féete ci waa Benno Bokk Yaakaar dañu koy lootaabe ngir daal jiima salfaañe seen ndaje maak yu ni mel ñuy artoo ko dànkaafu nag di woo cala wi dëkk ba ak jaraaf ja ñu jël seeni matuwaay bu baax a baax ba mbir ya daal mën a am ci jàmm ak dàll mbokk yi lii mooy li fi ruusoon ci tënkum xibaari bis bi nu amoon mbit mu rëy doon leen ko jottali ci Ali Imran TV di leen dig daje ëllëg ndem soob na yàlla